الحمد لله رب العالمين لا حل إلى قول مولد المختار خير الخلائق ساحب الأنوار ما خليفة موقف بنت الله محمد صلى الله عليه وسلم من ورن من عدل كل بنت الله محمد نحو بدور سائب في البرايا كل بدر بلا شفاء نيل نيل نبت يا رجال من هناك دلنا جار بنيان لبوليتي يورك يا نقول أنا قبض أسكن السنغال آمين يا أبي سنين شاك يا نيس نيجس أن تانك كلفة دينه نيجس ما نم لب بولا قمنا لالن دينه جرك sa loxo nga ca biir heure bu ñu laalee diine ji rek sa loxo nga ci biir ndax ay couvre-feu bi amoon fii ci ginnaaw ak jumaa yi ñu tëjoon ne du tijjeeku ñu gis rélection boo ci def nga ànd ak xalifa général bu lew nañu seen ànd xeex buñ tijji jumaa yi tey ñu laal ku jaral laal ku matal laal muy yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi moom lañ laal muy ku ko laal muy noonu lislaam muy euh, président France ñëw attaqué yonent yàlla muhammad xas ko en tant que kilifa diine Serigne Cheikh Tidiane ness lolu lan mo ci sa gis-gis. alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala asrafil khair anbiya wal mursalin سيد الوجود وعلم سعود محمد بن عبد الله rasulillah الله ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد baad سنغال Sénégal mbokki àdduna mbokki diaspora bi yëpp jàmm su tuuti su xeebu moo Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Niass petit fils de xalifa général Léona Niassène tey nag waxee wuñ ci cadre faj soxlay jaam ñi dañuy waxee ci cadre ki tax ñi mën a faj soxlay jaam ñi muy sangu-sang yi muy wa annahu xayru xalqillaahi kullihim muhammadun basarun laa kal basar muhammad ibn abdillahi muhammadun taaha aminu shafiun muhammadun mi nga xam ni lépp lu yàlla amal rek mu ngi ko amale coobeem nga ki nga xam ne it moom la yàlla waxoon ne وإنك لعلى خلق عظيم كي خامني جيكو رك لاكو يالا تاغي جيكو جوجو يالا تاغي كو ناك موم موم مو مو ترانسي نون الاسلامي ناخ دينيت دولو مانا فاي سي ادنا نان نان تيد ني نوبلو ناخ دانيو ديف لوني واخ سيانس خامني دومو دومو نيوم يني جورتي لي ني جورتي ادمي بودي 1000 بيرسون لا خاج بي بوك خاجاتي 100 بيرسون نولن تي گم لي تي ديس ييب تي الاسلام نين ديم ني نان نك لغي nañ monter ay secte ñi nga xam ne dañuy am fit pour dugg ci di xas yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam may njëkkee nag ci kilifa diine yi nekk Sénégal en tant que doomu soxna waxeewuma nag tey en cadre en tant que sëñ Cheikh buy ñaan buy nangam buy faj soxlay jaam yi déedéet foofu génn nañ fi damay waxee tey en tant que doomu soxna ki nga xam ne lépp lu doomu soxna am moo tax ñu am ko lépp lu ñuy tiitaroo ci doomu soxna moo tax ñu moo tax yàlla defal ñu ko ki nga xam ne guddi gi jëm nii muy guddeem muy guddig wéru gam mu yonti yàlla Muhammad sa gën ci mbindeef ndax lépp lu yàlla bind rek mom mo gën moom la mam khalifa ne won anta tahal aminu anta shafiun khalqi lamma labdu subaaw wa sawaibun fil baraya kullu badrin bihi lana shifaaw nga man ci déggé ne yonti yàlla Muhammad momu mom la makor dama wax sa président ndax yelo wuko Macron ne daf koy xas ci ay coobere wala ci ay nangam mang koy attu diko xamal di xamal it président de la république du Sénégal ñiñ teg loxo teguñ ko fenn ñuy manifesté wu di drapeau France pour ñu tëj leen amul fenn fu ñu ko teg ndax li li ma ko wax moo gën a kawe drapeau drapeau France muy lan xas yontu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam est-ce que ñoom jullit lañ ah jullit danañ xas yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam am ñuy jug di manifesté wu tey kenn waru si war a jug président de la république manifesté wu boobu kenn waru si war a jiitu ci gouvernement ci manifesté wu boobu kenn waru fa war a jiitu sëñ Muntaxa ci manifesté wu boobu kenn waru fa war a jiitu sama maam xalifa général la san Cheikh Diagne xalifa ni si manifesté wu boobu kenn waru si war a jiitu Maay Ñas kenn waru si war a jiitu waa Bokk Njaasaan kenn waru si war a jiitu Canaba kenn waru si war a jiitu Laayeen ak ñépp kenn waru si war a warul woon si war a jiitu ndax lan ndax kuñ ci waxoon sa sëriñ nga jug kaas ko kuñ ci karate gi sa sëriñ nga jug kaas ko waa ñu karate gi yonent yàlla ma sant bi mooy deux fois ñu essayé ko mu mu bëgg a jàll ñooy duñ kaas loolu fu ñu ko teg fu ñu ko teg ndax yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi moom diina moo ko taxoon a jug diina ji mission complet mat na mënuñoo muusa ko waane ba lu toll tarafatal ay ne ci diina ji islam du jug lu waral suñ suñ suñ wax jii nag ñu ngi attu ñi jiite réew mi ne leen nañ moytoo yeey fitna ci wàllu diine ndax yeey nañ ci wàllu tarixa ñu rassemble waxtaan ku ci nekk xam ne sa xam ne fi ngay fi ngay nañ ko moytoo yee ci walu diine kilifa diine yi nañ jug wax nañ jug attu ndax ku ci tok sa fauteuil mu neex yontu yàlla Muhammad motax ku ci tok sa fauteuil mu neex sa sa bàyyi taxu sa mam taxu ndax bu dul woon ak yontu yàlla muhammad sallallahu alayhi wasallam ben xewul l'islam du judd ba xewul tarikha du judd kon nañ baye xel lol ku ku fàttale la fal nak la fol yomb nañ nañ baye xel ci diine ji ñu baye xel ci tar ci sen tarikha yi xam na sen tarikha yi li ko ëmb yëpp mooy ëmbab yontu yàlla muhammad sallallahu alayhi wasallam moy saxama comme nak nit du nit du foyé ndonoom ñun suñu dono moy yonent bi ñi ngi lancé président de la république ñi ngi ci téye nañ leen bax teguñ ko fen li ñu war a attu ñoom ñoo ñoom mooy ñi ci nekk jullit ñu ñu wax ak ñi ci nekk jullit ñoom seen religion seen gëm-gëm mais bu ñu am complexe lépp nag Afrique complexe moo ñu ko yóbbee bu ñu am complexe man ku may tëj wala nga may rey nanga ma rey ci bëgg yontu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam ku may ku ma ko defee ci ngir mbëggeelu yontu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam li tax may wax lii nag fitna mi ngi bëgg a yeewu ci réew mi te bëgguñ bëgguñ lu ci lu ko yeey que doomu soxna te bëggal nañ it président de jàmm ju sëkk en tant que lew nañu seen bëggal nañ ko jàmm jàmm duñ ko bëggal mooy na xool nuñ calmé niñ tee ñu génn leen ñu dem dox seen soxla ndax ki jara xeexal lañ ñu xeexal kat muy yonent bi te te te attention nañ moytu fay nañ moytu fay fay fayu bu yàlla wala meru yàlla ci seen kaw ndax képp kuy xeexal yonent bi nga jël ko jàpp tëj yàllaay boppam ni nga xam ne Abraha doon na ko tojee ci Kaaba ga wax ñu dajee mu nekkoon buuru Màkka ca atam ca jamono jooja ñu wax ak moom Abdul Mutalib ne leen Kaaba borom moo koy sàmm noonu la yàlla di sàmmee yonantu bi nga xam ne nag moo mooy borom Kaaba ga moo tax ñu màggal loolu ndax yonantu yàlla Ibrahim moo fa tabax Kaaba ga waaye wa azin fi naas bil hajji yaxtuka rijaale wa ala kulli daabir yaati min kulli fajjin amiqin ba ko Ibrahima di oote Ibrahima la ci ginnaaw ne aadamaa ko mag ci zahir waaye képp ku képp koo xam ne ni du yàlla rek Mouhamed la mag ci baatin ak ak ci lu dul baatin kon Mouhamed moom lañ bëgg ñu teg ko ci suuf lépp lu nit mën a def ci manifesté wu na ko def kilifa diine yi nañ génn wax lu jaraw lu jara wax lañ doon ut mi ngi nii mooy di jara wax président bii nag maa ngi ñaan yàlla mbugalam suñu borom këpp ci kawam bu fekkee taraxal diine moo ko tax a jug ñun de ku nar dox suñu digganteeg suñu diine yàlla yàlla dox suñu digganteeg moom ba fàtt suñu diine ci barke yëpp yàlla moo nit amul lu ngëm-ngëmam ngëm-ngëm foi la sëñ Cheikh Diagne Sy Al Maktoum doon na wax ne nit nga may ko milliard nga takkal ko soxna su dàq ci soxna yóbbu ko réew mu dàq ci réew yi nga bàyyee ko ngëm-ngëmam moo ko gënal ñun suñu ngëm-ngëmam mooy yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu seen mbokk seen xarit Serigne Cheikh Tidiane Niass jàmm su di lancer appel président de ne ko na def attention ci yu na def attention ci yu bari ndax réew mi am na lu fiy xeeñ loo xam ne gis nañ ko waxeewuñ ci ndox su bakkan nag gis nañ ko te xam nañ lii ñëw nañ bàyyi ñiñ téye ñu dem dox seen soxla ñun ci mën a waxtaan ak ñoom waxtaan ak ñoom ñoom tamit France gi nga xam ne moo ñu colonise moo ñu jiite comme ñoom loolu lañ gëm ba tey nañ waxtaan ak ñoom nit ku nekk sañ naa waxtaan ak sa kilifa ne leen lii nga wax du yoon bu dëgg du nangam yooyu la problème lii kese moo nekkoon problème bi wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu macha allah